du sama doomu paasaar di nuyu réew mi Baba Diakhal ku ne xam na ne sa open press ñii lay mën a mel ndax yàllaa la jagleel lii mais Baba Diakhal nuyul mbokki Sénégal nuyul mbokki àdduna Baba Diakhal laay bismillah bismillah dina ma sant yàlla julli fi may sant sama ñaar waajur waaw di sant sama yaay yàlla na fa yàgg sama yaay yàlla na fekke sama sama yaay yàlla na fekke sama képp ku nga xam ne sa yaay ngeen dund yaa ngi gis yàlla na fekke seen ba mel ni man yéene bu ma am ci sama yaay waaw comme yéen di sant nag kenn muy maam Thierno Babou Laye borom daaru nooree ni sama sëriñ sama wasila yàlla na fa yàgg te daaru nooree ni yàlla fa yàgg di nuyu si Baye Daara yi Baye Fall yi Tidiane yi kilifa diine yëpp maa ngi leen di nuyu su ma jugee di nuyu sama jëwriñ muy Lamine Kane mu nga xam ne moo jiite Daara Sam-Sam su ma jugee nag di nuyu fu ma dëkk yëmbal laa juddoo fii Siraay bi laa màggee di sant waa yëmbal Sam-Sam 1 2 waa Katia Baas. waa waa Katia Baas. waaw di nuyu waa Katia Baas. waa yëmbal waa Poul Kër Massar fépp fu nga xam ne fan sa Baba Diakhal mu ngi fa Baba Diakhal lu tax sa open press ñu daan ko xam ci terrain naar ya fële ca Télécom tey nga indi ko naataange lan moo waral loolu waaw terrain naar ya foofu laa ko daan defee yàlla dogal xajuma ma gis yëmbal foofu laa ji doon fii si raay bi avant terre bi ñëkk suñu fii naataanga bii suñu kër lañ ko sosee si raay bi ma juddoo foofu ma xam ne kat war naa delloo buum ca mbooweewu muy naataange yëngal fii ma dëkk man xaaral def ko moom mais nag ba ko fi indee sant yàlla waa gis naa fi lu rëy waa defar nañ organiser lépp waa gis musuma moo pom pressement rek yéen est-ce que ma sama pom pressement non waa naataange maa leen sant maa ngi sant waa naataange farba yëmbal waa Kaja Baas fàttewu ma leen ay see yi nekk si ginnaaw quartier baas yëmbal waa are are are Fall Lawbe ñëpp a ah, are Baye Fall ah quartier baas firi laayo fépp man Baba maa leen di di nuyu ñëpp Fall looloo tax may ni ko fii Baba Diakhal gis nañ ne nga tukki woon voyage yi ñëw mais Baba jaxal poids bi ñu gis si yow bi ñu gis si yow yaa ko moom wala macha allah mais coach bi sax suñu entraîneur wàññi nañ sax 5 si ñun. ah suñu entraîneur wàññi na si ñun sax 5 bi nga ñëwee. ba mu ñëwee wàññi nañ 5 kilos si ñun sax. waaw ah. Bamba Thiam. Baba Baba ñu ngi lay nuyu. comme ni ko Fallou waxee rek gis nañu la nga voyage yi ci kombaa bi mais bi nga ñëwee li nga njëkk a wax mooy sa adversaire na toog xaar la yaa ngi ñëw lan moo waral loolu. waaw damaa xam ne lu ma yóbbu fee. may sant bu nga xam ne foofu moom laa fekk muy Ibou Socé Seydou Mari Ndiaye combat bi le 13 victoire bi Fatou moom doomu Ibou Socé le 13 janvier la judd le 13 janvier laay bëre ndam de moom lu waral nga ni mu taxaw xaar la waaw lu tax ma ne na taxaw xaar ma parce que ba ma demee Maroc lu ma fa yóbbu def naa ko muy entraînement liggéey lekk ba suur sama xel dal Ibou Socé maa lay sant bu baax a baax Ibou Socé may sant waa Maroc bi ñëpp waa Diès 1 2 xarit ñoom Balla ñoom Babacar xam nga di sant yakum ñaar yakum naar sama xarit Dièze 37 plus 2 yakum yow sama waay nga sama lépp nga yéen entraînement kaay lépp yaa ma koy yéen di sant nag sama coach moom ak Papa Sita mu xam ne laa ko nekkal. Baba yaa ma si laaj quoi. parce que danga maa ne lu tax. ma dem ñëw ne Ibou fi am nga problème voilà parce que ñooñ dañu ma faa teeru teeru bu rafet moo tax toppatoo ma mhm. mais nag boo déggee man Ibou Afia tafal maa ngi ñëw mhm. que lu ma liggéey du pour moom mais nee nga ko tamit nee nga ni ko li nga liggéey gars yi dañu nga ni nga liggéey du pour moom loolu tamit fan nga ko teg waaw si doole bu ma uti woon ok waaw nee nañ baaba maaga na man leen maay doomu sam maa maay doomu yëmbal mhm. teg si drapeau bi jox ma ko mu ma téye Ibou Ndaw hmm? waaw moo tax ma ne lu ma liggéey du pour moom baaba jaxal bis bi ngay bëri mhm. nga ameel sam-sam bor ameel sa waa koñ bor ameel say fans bor mais ba jaxal bis bi ngay bëree bis bi ngay bëree est-ce que wute naag yeneen bis yi waaw bis bis la bis moom mënul weesu bis ndax bis bii bis la rek day jàll rek suba ñu fàtte ko ñu ne woon wala barki démb Mm. mais nag bés bi incha allah si kàttan yàlla waa Yaram Art waaw dinañ bëgg dinaa mobiliser dinaa bëre dinaa daan nee naa la lu ma liggéey si kàttan yàlla nee naa la lu ma liggéey. Baba Diakhal ñu ngi gis ni yaa ngi soog adversaire boo xamante ne nii yéen a tolloo taay ndax yaakaar naa ne bëgg a génne si Pape Dianka bëgg a génne si ren jeen ren seega jël Pape Dianka génn si Clémenceau ba ba léegi gis nañ Pape Baba Diakhal day jël adversaire yoo xam ñëpp dañ naan relance bi day joué moom wala dañ naan ñi dañ ko ëpp doole nga jël tey Ibou Afia choix bi lan moo ko waral. waaw looloo tax euh, man leen Ibou Afia am na problème hmm. loolay tontu bi waaw nee nga adversaire maa ngi bë doog a bëriwaat adversaire bu ma hmm. moo tax man leen Ibou Afia am na problème léegi choix lu ko waral. non maanaam tey jii choix xam nga mooy lan maanaam daam lu ma amal supporter yi hmm. moo leen kaa fay man xam naa ko. li yombul. lii nii yombul quoi. waaw mais damay sant yàlla di sant sama yaay bu baax a baax. waaw loolu la. mën nañ xaar sa digganteeg euh, Ibou Afia comme lañ gisoon sa combat yi njëkk ya taxaw samp jaaga xeex mu jogo jeexe si bëri. Ibou Afia maa man maa ëpp doole. su ma la jàppee mu jeex su ma ko jàppee mu jeex. am waa kër Ibou Afia nee moom xeex ak moom. Ibou Afia indil lu làmb la. bëre dóor xeex. préparel bëre su ma la jàppee nga xam ne jeex na may sant nag ku nga xam ne sama PDG mi Abdou Samad kooku suñu kilifa la suñu lépp la muy Abdou Samad maanaam mu ngi dëkk si dëkk bi ñun ay jeunes la ñun ñi te ay mbooloo dañuy topp waaw ñun ñi nga xam ne mbooloo topp nañu rek mun nañu ñun rek mën nañ defar suñ dëkk mais nag si ko defar luñ koy defaree lan la bu ñu ko joxe ñu ànd nga xam ne dañoo dégg dañoo déggal ñu defar suñ dëkk Ibou am na lu mu wax de. wax laay wax de. waaw Ibou am na lu wax de. Ibou am na lu muy wax de suuf Ibou nee na. Hmm. Ibou nee na moo dara ci combat bi. nee na yow ñëw bëre daanu nga ci lan nga koy wax. xanaa xamoon Ibou Afia moom ak ay mbokkam euh, tooguñu. loolu xel dalul. ndax lan si man. ndax lan Ibou Afia daa wax benn wax ne ma mbër ma ko wax yokkal maas ñëw pour moom maas leneen ak leneen la. doole ju wóor la doole ju wóor fi ñu ko jàppee mu jeex incha allah. ñëwal waaw may nuyu di sant nag sama grand euh, Abdou Samad mu nga xam ne Serigne ñëwal ci question bi Serigne. waaw ma maay waaw Serigne. damay damay nuyu kii ba pare. sama papa la mais il faut ma nuyu balaa ngaa nuyu waaw il faut ma nuyu sama papa ji muy sama papa. macha allah Baba Diakhal yaakaar naa nga tegle ñaari combat yi nga xamante ni xam nu mu demee. Mhm. te premier yi nga xamante ni gis li bëree am benn defet amaat. ñëpp dañ leen di abaat doole dañ leen di bàyyi. dem ba sëriñ da ngaa wax benn wax nee nga ma gis nañ ñi nga xam ne bu ñu bëree bëriwaat nit ñi bàyyi leen ñun ñi man ak ñi du làmb te tamit dañoo mbabatoo noog ñoom ñu ànd dem fu ne te ñun dañoo wàcce suñu bopp nit mën ngaa luwee 16 mais mënoo luwee nit maanaam nee nañ nit lu ma def xaw ma lu nga ko def moo moo tax. voilà kon loolu ñu ñun ak ñëw naa ensemble te ñii tey jii lañ ma gën a bëgg te le treize incha allah naa leen firndeel lan moo tax ma dem Maroc entraîné. mais seize yi dinañ nga ne seize yi. wax naa la baal di waxu waaw. waaw nee naa la bis bis la rek combat ma du ma ko jël yenu ko ndax Ibou Afia du fee man maa ngi maa ngi toog si ay ndam. def ma ni sax dama jóge si defet barki alxuraanu karim war na borom daaru nag laa barki borom daaru da nga amee boot de da nga xama xamante dama dama dégg wax nga de da dem Maroc mais demoo Maroc pour Ibou Afia pour kan moo tax nga dem Maroc waaw ñu nekk ca kanam xam ne man nekkul man ak Ibou du maag moom sànq wax nga nee sànq sànq wax nga nee nga nee nga Baba Diakhal dem Maroc entraîné ji Bamba Thiam ne la nga ne ma Ibou Afia am na problème mais dama laa ne lu ma entraîné du pour Ibou Afia moo tax. te lu tax ma jël ko daa am lu ma amal nii moo tax ma wàcc jël mais Fallou dañoo gis ni combat bi bañ koy bëgg yàgg na avant muy bëreeg bébé bis mi mu bàyyi fi ba jël Ibou Afia jël bébé bis mi ñu waxaat combat bi mu bàyyiwaat euh, Ibou jëlaat ki nga xamante ne nii mooy naaru sokaas mu jógewaat foofu jël caatu ngéwal léegi da ngaa jàpp ni si Ibou Afia nga war a dëgg féewu moo tax nga jël ko wala. nee nga yow nee nga say wax ku ne tëgg na koo sottiwul mais tey jii la ko yàlla dogal si waa Yaram Aar. mais soo lu tax laaj ko kun fayee kun. Ah waaw mais man yàlla dogal lool. Ah, waaw waaw ko. waaw nee naa la arène nationale même su ma bëroo su ma ñëwee seetaan si làmb. stade bi day moo nii lay def gëm a yaa ngi ko mbooloo. non la mbooloo de. arène nationale laa la wax su ma ñëwee. même bëréew ma dama seetaan si laam wallaahi ni lay def génn xanaa yaay rabu arène nationale man maa maa moom arène bi maa tax ñu dindi siège yi wax naa wax naa leen nañ woo Sinoa yi nga xam ne dër bi laay damm si digg bi nga ne dër dër bi laay damm si digg bi léegi Baba Jaxal waxal ak Ibu Afia moom lay jàkkaarloog moom waxal ak moom Abdou Samad bu Paasaar. waaw gis nañu taxawaayam fii. kii suñu lépp xam ne si ni moom ak Paasaar xam nañu ay yitteem. waaw bu ñu ko gisee fii su xol day sedd. Mhm. waaw donc euh, di ñu sant yàlla. Ah, di julli ci yonent bi. Babacar loolu am na solo yaakaar naa ne loolu. bu ñu ko déggee ci Babacar nag ah loolu moom lan ngay wax ci DG Pa Abdou Sarr mi nga xamante ni yabal na Abdou Samad ci lii mu taxawaay bu wax ni ne boo daanee combat bii da la yóbbu Paris nga waajal fay sa yeneen kon lan ngay wax say supporters lan ngay wax. promoteur lan ngay wax amateur waaw xam maanaam. papa moo ko mën a doon. te papa Abdou toog suñu papa la suñu lépp la papa Sarr suñu papa la suñu lépp la waaw su ma si jógee bu ñu nee mbër staff ak coach may nuyu sama papa Jalle Birama Thior bu baax a baax Jalle Birama Thior yàlla na fi yàgg te wér. amiin Jalle Birama yàlla na fi te wér. di nuyu sama coach Yoro sama coach Codé coach Agis entraîneur yëpp coach Laay. gaa yëpp entraîneur yi Modou Baye Fall man baaba maa ngi leen nuyu su ma jógee di nuyu kenn sama nit sama mag sama lépp muy Baye Fallu Baye Fall yi muy bébé Seye doom maître Ousmane Seye kooku sama waay la sama lépp la di ko nuyu moom ak gaa yëpp Ibou Socé yaa ngi si biir waaw su ma jógee nag di nuyu di woo autorité ñi nga xam ne pour ñoo jàpp si may woo mbay borom LCD borom écran plat yi Mbaye gis naa la jàpp nga si bu baax a baax ma lay gën a woo nga jàpp si bologee ndax oma dara lu dul jàmbaare su ma jógee di woo général business Ndiom borom iPhone man maa lay woo yow général nga ñoo jàpp si bu baax a baax a baax a baax ma si jógee di woo mbiidu mu nga xam ne moo jiite affaire yi surtout waa naataanga ak mbiidu ku mel ni mbiidu teg naa ko sa loxo di nuyu sama grand frère Bada Tupac ak ñoom mbiidu sama ami d'enfance ñi nga xam ne maa ñoom ñoo doon ànd di ko teg si loxoy Maslo ak euh, Lamine général Fallou ak Fallou Fallou sama nit borom Kër Mbay Fall eh, borom Tivaouane Peulh Fallou may nuyu ñëpp di nuyu waa naataanga su ma si jógee nag di nuyu benn boy dama koy sant papa mooy ba ma nekkee Maroc hmm. dafa dégg baabaa baabaay fa ñoo bokk dëkk hmm. wallaahi mu ñëw seet combat Siteu Lac de Guiers hmm. maam moom ñoo bokk toog seetaan ko ndeysaan mu doon jaale Espagne fa mu gaañu ñoo bokk koñ fii si ko seen la waaw nga xam ne samay rakk lañ ku mel ne ñoom Faari Keba la moo fekk mais papa nag bi laal na ma trop trop sax parce que maam moom ñoo bokk seetaandoo ba may ñibbisi ma taagu ko maa ngi ñibbi far yàlla ma ñëw lii am ma koy jaale seen waa kër ñoom ñëpp di sant nag ñi nga xam ne dañuy jàpp si Babou Diakhal les pro gis naa baas bi jàpp nga si bu baax a baax a baax a a baax sa fay yow nag jàmbaar nga si koñ bi képp kuy defar ti set les pro laa jox nuyoo bi di teg Babou Diakhal loo yóbbante Ibou Afia mu ngi lay seetaan non Ibou Afia wax nañ ko lu ñu wax nañ bàyyi xala fallu dama bëgg a sant maanaam yéen ñi yéen ñi yéen non Fallou jeex na mais waaw yéen Fallou baa ma sant gars yi nga dañuy jàpp si kii bi xam nga maa ngi woo Modou Fall borom Pikine président AS Pikine Modou Fall président AS Pikine maa ngi koy sant bu baax a baax di sant nag ñi nga xam ne mooy caméraman yi ah waa caméraman yi ñii ma leen di sant bu baax a baax di sant waa jaa waa jaam a gën slogan bi nag mooy lu ma leen wax ku taxul noir fumé doo dugg suñu kër taara optique ana verre yi verre sama bosan gisoo noir fumé gisoo leen si baaba jaxal am jaxal ah, waaw moo koy jaay ak baaba karba xaalis sama gaay di nuyu zenga sama grand frère grand zenga ah di nuyu gaay ku mel ñoom Cheikh ñoom Lamine Diaw ah ku mel ne nag waa VIP boo yi nga xam ne maa ñoom grand ah yéen ñi grand Bondio yéen Diaw yéen ñi Malick ah, ma Abdou. ana Malick ana Malick eh, mais kii sama boola ma Fatim Mbodj Sok sama waay la kooku lu ma ko laaj ci sarax mu génnee ko ma Fatim. ne mais tamit ku nekk ne si mën a gis boppam. jërëjëf dañ ko ne ñu sant ñëpp rek. Ah, ma Fatim di sant waa Sam Sam ñëpp nag di bëggee ñëpp nuyu ñëpp nuyu waa ñëpp.